parce que ndekki xale dafa war a ndekki le matin. Mm-hmm. bon suñu génnee dinañ leen sarax mais ñun dañu dañu ne nañu xalaat xale yi nekk ci biir daara bi avant ñu génn mhm. c'est possible hein, on l'a fait on l'a commencé hier ok euh, c'est possible mais nag ñu gis ni ñoom tamit euh, heure bi ñuy génn est-ce que mhm. yéen a ngi ciy waxtaan ak borom daara yi mhm. maanaam comme ni ma la ko waxee woon ne la xale bi dina soxla affection maternelle paternelle mais néanmoins tamit war na di nelaw some yu xale dafa am heure bu mu war a am mais des fois nga gis xale yi ci mbedd mi à 4 heures du matin booy liggéey taseeg xale yi taalibe yi ña nga jóge ca daara ja ña ngay daw ca tali ba pour wuti ji lu ñu am euh, donc ba ba vingt deux heures des fois boo xawee guddee ci mbedd mi di leen gis euh, est-ce que yéen a ngi sensibiliser borom daara yi pour ñu au moins ñu permettre xale yi mm-hmm. ñuy nelaw tuuti bon dinañ def sensibilisation ak ñoom. Mhm. bu ñu gisee lu nga xam ne eh, kiiwul dinañ waxtaan ak ñoom ndànk-ndànk xam na lañ koy waxee ñoom. Mhm. bañ leen frustré ba nga xam ne dinañ dinañ comprendre mais eh, xam nga y a une chose aussi eh, ku nekk ak sa façon ni ngay jàngalee. Mhm. bon daara c'est difficile il y a des problèmes dans les daara ñu nga xam ne ñun xëy benn bi mënuñu ci dara. Mhm. parce que y a aussi yu nga xam ne xëy na c'est leur rôle. Ah, euh, am na loolu am na part de responsabilité parents yi nga xam ne aussi. Mhm. seen responsabilité daf ciy nekk. Mhm. mais am na leneen ñun am na yu nga xam ne daal mun nañ ko changer mais am na yu nga xam ne. ñun kese mënuñu ko changer. moo tax euh, chaque fois dañuy def par exemple au mois de janvier on avait fait au CICES une euh, de sensibilisation avec les femmes. pour système ndey daara bi nga xam ne daf fi amoon. continuer pour euh, jigéen ñi di di saytu xale yi di leen jàppale daal mhm. donc euh, bon c'est pas c'est pas facile par exemple da ngay gis euh, xale yi bon suñ doon am lu ñu lekk mhm. ah mhm. nit ñi di leen jàppale donc dina am na lu wàññeeku ci loolu mais xam nga xale sëriñ daara nga jox ko cinquante xale yow rek soo yoree sa kër ak trois gosses déjà ça pose énormément de problème donc maître coranique bi ñëw ak cinquante gosses soixante gosses bon il faut xale yi génn c'est logique bi. Mhm. c'est pas possible xale bi toog. ok maître coranique bi n'a pas les mënu ko dundal. ok xale euh, mu am point boo laaloon parce que da ni euh, certes que parents yi am na ci ñoo xamante ni dañuy joxe seen doom mais bàyyi noonu mais am na ci ñoo xamante ni aussi dañoo bëgg a jàngal seen doom àdduna ba tax na ñu leen di yóbbu ci daara yi pour ñu tumuranke tuuti xam lan mooy àdduna jàng àdduna mhm. mais mu mel ni kon tey jii. am na parents yoo xamante ni peut-être que am nañuy moyen pour mën a yore seeni doom est-ce que yéen a ngi def ay démarches dem contacter leen sensibiliser leen pour ñoom it euh, ñuy participer ci daara ji impliquer leen tuuti ci frais yi nga xamante ni mooy am ci daara ji pour pour alléger tuuti sëriñ bi ba mu bañ a yelwaan loo xale bi xam nga y a deux choses mm-hmm. euh, parents yi doo leen sax xam ok doo leen xam mm-hmm. et puis ñun en tant que association mm-hmm. on n'a pas le droit on n'a pas le droit euh, di dem ci parent bi dañuy yem ci. daara bi ci daara bi. Mhm. on n'a pas le droit parce que. pourquoi pas. bon euh, des des fois on a des fois dañuy intervenir. Mhm. par exemple xale su dawee. Mhm. yenn saa yi dañuy woo fen par exemple. en pleine nuit dañ lay wone la. gis nañ benn daara ci koñ bi pare man des fois on m'appelle la nuit toujours ah. Mm -hmm. hier soir même euh, on m'a invité sur un plateau j'étais avec un gosse. qui a fait deux jours dans le daara. guddi lañ ko for donc dañ may woo. des gens m'appellent de partout pour me dire que am na benn xale bu ñu for da la donc man sama sans réfléchir ah. damay génn dem toppatoo fan la fan xale bi dëkk. Mm-hmm. su waree ñëw sama kër ma indi ko sama kër. Mm-hmm. sang ko mu lekk tëdd ba ëllëg sama ñu def ay recherche pour xool fan la waajuram dëkk. cas yooyu rek la ñuy seet parents yi mais sinon du ñu intervenir parce que euh, li ci ëpp xale yi jógewuñu fii. li ci ëpp ils font des centaines de kilomètres avec. Euh, ak sëriñ daara bi. xam nga parents nit ñi dañu bëgg jàng alxuraan. Mm-hmm. seen doom yi jàng alxuraan. Mm-hmm. bon ñenn ñi amuñu moyens yi. Mm-hmm. Euh, parce que gis nga yalwaan boobu bu njëkk. xale yi dañ ko daan def parce que dañu doon jàngal xale yi bi mu modeste. xam àdduna bo ëllëg mu xam ne àdduna du toujours. nga am li nga bëgg tout ça loolu moo waraloon xale yi daan dem di yalwaan mais daawuñu sori sax waaw mais est-ce que kon jotul jotul ñu ñu instaurer enseignement religieux dans les écoles parce que d'autant plus que parents yi alxuraan gi rek lañ ciy sàkku bu dee loolu rek lañ ciy sàkku mhm. euh, parce que waa pareer bi ma leen seeti jee démb mhm. euh, am na ay daara mhm. moderne ñoom yu ñu construire au niveau de la Casamance ak euh, ci zone boobu pour rek seen doom yi bañ a ñëw ba Dakar di yalwaan si ak di jàng si alxuraan kuy seet ku mën a jàngale alxuraan kese kese kese mm-hmm. ñàkku fa. Mm-hmm. am na ñu ko fa mën macha allah. Mm-hmm. est-ce que yéen tamit yéen a ngi gëstu ci lu demee noonu soit ñu dugal njàngum alxuraan bi ci école bi. wala boog daara moderne yi ñu ngeen dem ca gox ya. fi nga xamante ni le coins le plus reculés. ngeen instauré ko fa soit avec l'aide de l'État ou bien avec l'aide des ONG. xam nga euh, bon. xale xale yi. Mhm. dafa am lu nekk mooy gis nga démb sëriñ euh, daara bi ñu doon defal ndekki démb. Mhm. dafa nañu ñun suñu amoon suñu jàppale woon. bu ñu mhm. jàppale woon suñu amoon mooy dañuy dellu fa ñu jóge woon parce que dañu sonn. waay dañ mën naan xadi suñu gisoon ku ñu jàppale. Euh, dañuy delluwaat fa ñu dëkkoon fa ñuy jóge parce que xale yi dañuy dañuy sonn ñu sonn ñun tam. et nit ñi topp di wax toujours. bon xale yenn saa yi feebar yeeg yi mel noonu xam nga loolu yëpp dafa metti donc euh, am na benn kiiw développement communautaire bu nga xam ne ñu ngi ci woon ñu ngi ci woon. Mhm. mais c'est pas rapide dafa dafa nekk lu nga xam ne gaawul gaaw noonu. Mhm. mais ñoom dañ ci choisir quatre pour ne bon ëllëg ki si biir xëy na. Mhm. si les moyens le permettent. dinañ leen mën permettre pour ñu dem daal. seen mhm. dellu fi ñu nekkoon bay mhm. wala dara. Mhm. parce que daara bu njëkk noonu la woon sëriñ daara bi dafa daan am dongoom am toolam. di bay xale yi di dundee di di di lekk mu ci jaay di ci dund daal. ak famille am donc de loolu daawul metti mais xam nga mettitu jamono ji tax na. ñoom dañuy jóge fi ñu nekk ñëw Dakar. su ko defee xëy na yaakaar ne Dakar moo gën a yomb. alors que suñu xasee ba ñëw dañuy xam ne Dakar c'est difficile. ok waaw mais ba tey a laaj parce que benn bi mooy est-ce que xalaat ngeen ci wàllu réinsertion xale bi. Mm-hmm. parce que su fekkee ni euh, mi ngi jàng daara. Mm-hmm. mi ngi ak potam di yalwaan. Mm-hmm. mais dina am dem ba am benn age boo xamante ni peut-être que. yalwaan bi dina ko xaw a tuuti donte xale moom lu mu tàmm ci xaleem ba nekk mag peut-être que du ko gêner mais mën na am tamit mu dem ba nekk mag bëgg a defi leneen est-ce que yéen a ngi xalaat ci réinsertion xale yi. waaw réinsertion bu gisoo ñi ñuy wax ne démb ñoom ku leen jàppale ñu dem xam nga kon kooku ñun bis bu ñu gisoon ko nga xam ne nee dama bëgg jàppale sëriñ pour mu dem dañ ko koy proposé ne ko kii dafa bëgg ñibbi dëkkam c'est loolu ñu ngi lancé appel autorité